السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yéen mbokk yi ànd ak seen chaîne bii di Xam Sam Réew TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxa Mbàkke mi toog toogaayu sëriñ Touba di ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak njabootu sëriñ Touba gépp di nuyu ak ziyaara sëriñ Basiiru Anta Ñaŋ mi toog toogaayu borom Daarul Muxti ak njabootu borom Daarul Muxti gépp mbokk yi kon ni ngeen ko diggee woon ci xamle njabootu kierno jot na ngir waajal nisfu Shaaban démb ñoo ngi woon ci Sëriñ Abdourahman Mbakke moom borom darul morti tey jii nag ñu fas yéene ñëw ci ñetteelu xalifa borom darul morti di Sëriñ Cheikh Xaddi Mbakke mi wuutu woon Cheikh Abdoul Khoudous Mbakke ci khilafa gi jëm joju di Serigne Cheikh khaddi mbake mu ngi feñ ci atum junni ak juroom ñenti témèr ak ñaar fukk ak ñett 1923 di at mi nga xamanteni way juroom borom Darou morti ci la ci pak bi di daru Koso te doomam Serigne mahamadan nekkoon fa daan jaamu yàlla ak a jàngale soxna xaddi juuf mooy mujigen mu jigéen borom daarul muxti di waajuram mu góor mu doonoon ku borom daarul muxti soppoon ba tuddee ko sëriñam ba di ko tedd ki xaadimu rasul Cheikh Ahmadou Bamba taxaw woon ak moom lool ba bi mu waree dem sàkku ji xam-xam jàngi da ko jébbal ab taawam sëñ mu daaw bal la ni ko na ko yor ba borom daru miis ko taxaw gi mu dog ko yóbbu daara sëñ mu daaw bal la def noonu boole ga leen borom daaru muxti boole woon loola moo wéy ba Serigne Cheikh Khady Mbacké daanaka waajur la jàppe woon sëñ moo daaw bal la jaxasoo ak moom ak ak njabootam ba bi mu ko gisatu di digganteem ak Serigne Moussa sa loole moom la wéyaloon moom moomu nag di Serigne Cheikh Khady yaroo ci keppaaru sëñ moodu aw bal la dafa bari lu sëñ Modou def ci moom li sëñ Modou doon ne woon ci borom Daarul Mooti lu ci bari daf ko def ci Serigne Cheikh xaddi mu nekk ak moom defoon ko sëriñ defoon ko kilifa ndax moom sëñ Cheikh Khady dafa nungu woon ñu yilif ko fañ ko war a yilife bi nga xamante ni dem na ba gisatul sëñ moo daw bal la sëñ Abdou Khoudous mi ko wuutu woon da koo jël def ko na mu defoon sëñ moo daw bal la déggul ko dégglu déggal ko lool nangul ko lool ba jël kenn ci ak njabootam muy ki mu tudde borom darul moxti maam Cerno jébbaloon ko sëriñ Abdou Khoudous ngir cofeel gu mu amoon ci Cheikh Abdoul Khoudous doonoon itam boroom baatin doonoon itam boroom xam-xam doonoon ku amoon yéeni ci liggéeyal waajuram boroom daarul moxti bi fi sëñ Modaaw Balla nekkee bi fi sëñ Abdou Xudus nekkee saa fu ñu masaan a geesu gis sëriñ Cheikh Xaddi loolee nag dafa am lu mu ko jural te loola feeñ na bi nga xamante ni magam Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké fekki na waajuram wa bayti sëñ Mourtala Ndiaye ca Canada Mourid Sadikh ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara monsieur Abdoul Khoudous mbake wàccee ab liggéey mu toog moom Serigne Cheikh Khady mbake di borom Daarul Moot foo mu seigne sëñ moo daaw bal na tegoon fa tànkam te mooy bëgguma Daarul Moot yi ñee benn dëkk gannaawam Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké moom it fa tànkam te mooy daarul mooti bëgguma mu ñee benn dëkk Cheikh Abdoul Khoudous da wax gouvernement bi ni leen lu ngeen di def rek def leen ko ci dëkk bi ak njaboot gi man sama mbir bàyyee naa ko sunu borom ab taxawaayam kenn ku nekk gis na ko suñ Cheikh Khady bi mu toogee 2003 di borom daarul mooti bi ñu duggee ci atum ñaari junni ak ñeent 2004 ñeenti fan ci weeru mars ci la woote këram njabootu borom moo Mouhty gépp daje fa mu diisoo ak ñoom ci li mu bokk ak ñoom da doon ku daa diisoo ak ñi mu war a diisool loolu moo tax ba Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké wàcceeb liggéey ci weeru avril ba demee ba weeru avril woowee di jub siwaat ca weeru wa mujj ci at Madame Cheikh Abdou Khoudous le 22 avril le Watch ab liggéey sëñ Cheikh Khady toog di borom Darul Morti. mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre juróom-ñetti weer gannaaw ba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar. ci weeru décembre 2003 ci la woote woon woote boobu nga xamante ni njabootu borom Darou Mouhty gi mu bokkal borom Darou Mouhty ñoom la woo ñu wuy si ko bisub dimanche di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre 2003 daje ba ñii ñoo fa teewoon moom Serigne Cheikh Khady Mbacké mi doon borom moo Mouhty woote daje ba rakam ji ko woon di Serigne Abbas mbakke moom it teewoon na rakkam ji wuutu sëriñ Abbas di sëriñ Basiru Anta Ñang moom itam teewoon na fa rakkam sëriñ Amsatu Mbakke doomam sëriñ Xaadim moom la yebaloon moo ko fa teewal sëriñ xalit Mbakke mi ci atum borom Daarul Mooti moom it doomam sëriñ Mahmadan موكفا تيوالون سيرين صاحب سوتي جاخاتي ني توك توغايو شيخ محمد هاو بالا موميت تيوان ناف سيرين شيخ الصفي ميغا خامتيني بي مو ووتو سيرين مصطفى مايدي خليفه سيرين محمود حبيب مومي teewaan na fa sëriñ Mbacke Dabassar mii xalifa Cheikh Abdourahman Mbacke moom borom darul mooti moom itam teewal na fa sëriñ maam Thierno Aydara di xalifa sëriñ Aydara di jambar moom itam teewal na fa sëriñ Basiru Astulo moom Cheikh Mahamad Hawa àndoon na ak magam sëriñ Moustapha Hafsatu Jaxate moom itam teewoon na fa sëriñ Bachir Abdul Xuddus ñu yore woon kaddu njabootu borom daarul moxti moom itam teewoon na fa sëriñ Modou Maxtaar jàmbaari borom daarul moxti joojee yal na ko borom daaru teeru moom teewoon na keroog ci woote boobu sëriñ Koso Mbakke moom Cheikh Abdourahman àndoon na ak magam sëriñ Mbakke Daba Sarr moom itam teewoon na fa sëriñ Koso Mbakke doon xalifa sëriñ Abdou Jamil moom itam teewoon na fa sëriñ Cheikh Habibou Mbakke doon xalifa sëriñ Abibu Mbàkke moom borom daarul Muxti moom itam teewoon na fa sëriñ Muaas Mbàkke doon xalifa sëriñ Cheikh Fati Fall moom it teewoon na fa sëriñ Koso Gànnaar moom Cheikh Mamad Hawa Ball àndoon na moom ak magam sëriñ Moussa Hafsatu Jaxate moom itam teewoon na fa sëriñ Mbàkke mi toog tey jataayub sëriñ Moustapha May jab ab xalifaam moom itam teewoon na fa sëriñ Modou Kara moom Cheikh Abdourahman moom borom Daaru Muhti moom it àndoon na ak magam sëriñ Mbàkke Daba Sarr moom it teewoon na fa sëriñ Modou Habib moom Cheikh Abdoul Khoudous Mbàkke moom itam teewoon na fa sëriñ maam Thierno di xalifa sëriñ Mbakke Anta moom it teewoon na fa sëriñ Abdul Aziz moom Cheikh Mamad Hawa Balla moom itam àndoon ak magam sëriñ Moustapha Hafsatu Jaxate moom itam na fa sëriñ maam moom sëriñ Cheikh Khadi ñu ma leen wax ni wajuram da koo jébbaloon Cheikh Abdoul moom itam teewoon na fa rakam Serigne Ousmane Mbacké mom Serigne Cheikh Khady moom itam teewoon na fa Serigne Abdoul Ahad Mbacké mi toog toogaayu Serigne Cheikh Fatloo mom Serigne Cheikh Faty Fall it Serigne Maam Thierno moom Serigne Abbas momit it àndoon na ak waajuram teewon nafa fa Serigne Khadim Mbacké moom Serigne Modou Mbacké moom Sey Abdourahman moom itam teewoon na fa Serigne Maam Mor Koso doon xalifa Cheikh Mahamadan moom itam teewoon na fa liggéeyaa ko nu borom Daarul Muxti mi doon bind ña fa teewoon moom it teewoon na fa ak Cheikh Asta Dieye Lo di directeur u Sotracom mi nga xamante ni bii moo yore woon liggéeyu yok jumaaji ak kër borom daaru googu wi teewon na fa ak sama xalifa serigne Abdou Diop mom Baye Omar Diop fa serigne serigne Modou mbaw andon ak serigne Moustapha Absatou mi doon bëkk neegu serigne Cheikh Khady ak ku ñuy wax serigne Mor Touré ndeysaan mu andon ak serigne Modou Mokhtar mi wàcc ab liggéey tey daje boobee ci la serigne Cheikh xamal ña fa teewoon nga gis ni àdduna du dara ñi mu tudd ñu bari tey wàcc nañu ab liggéey yal na leen Serigne Touba borom borom Darou yi dëkkoo ñu ci bari nekkatuñ fi tey ba leen sëñ bi waxee la mu leen doon doyee ca na ko magam ja defe woon Cheikh Mamadou Hawa Balla bi muy waaj a tàmbali jumaay Daarul Muhti ji nii sëñ Cheikh Khady defoon moo tax ma ni leen sëñ Maraw Bal li nekkoon ci moom da ko defoon ci sëñ Cheikh Khady ndax jumaa ji nga xamante ni mooy jumaay Daarul Muhti ñu tàmbali ko ci benn fan ci weeru mai 1966 ba mu koy waaja a tàmbali sëñ Maraw Bal dafa woo Daarul Muhti gépp ñi mu bokkal Ceerno ay rakkam ay doomam cheikh yi ak taalibe yi ba ñu dajee mu ni leen dëkk bi de li fi borom bëggoon jumaa moo ci des moom laa ko bëgg a tàmbalil man nag dencuma ab dërëm waaye am naa yàlla tey nag lépp loo xamante ni bii indi ngeen ko danaa ko def ci jumaa ji su ma demoon ba kenn joxuma dara it dana ma jaral ma ànd ma ak sama njaboot bu nu doon dem cëpp waaxum ndakaaru muy poorum ndakaaru ba di fa liggéeyaan di ko def ci jumaa ji itam dana ma ko jaral ñi nga xamante ni bu njëkk dameel yi bu ñu daan xare ji dañuy tëgg xas di sëñ mu daaw bal la waxee noonu euh, keroog bay Ndiak Seck moo njëkk a xaajo ni góoroo góor may man ci liggéeyub jumaa ji waaye nam ko waxee woon pôle yi nga xamante ni bu ñu daan tibb ciment si bi dafa am pôle yu ñu daan tëgg nga xam ne ci lañuy def ciment bi booba bétañor taxul mu jàppandi ñu di ko awante bu ñu sànnee kee aw ba mu yegg fañ ko bëggé mom bay Ndiak Seck moko doon dëgg bay mu numbe jang di mami Cheikh Omar Bamba Diop mo dal di wo ca mbolo ma mu Mandoumbe pend Diop di wajuru Damson niko ko am na bu meuna la de muniko ni ko waaw mu ni ko la ci waxon muniko ni ma waxon ni ma day sunu borom xamal na la ni jumaa dana am daaru muuti ñu jégalu ci dog-dog boobu connexion bi moo xaw a sant loo bàyyi ma numbe jàng jël junni ba jox ko sëñ moo daaw balla yónnee këram néegub seng ba fa nekkoon ñu dajji ko yenu ko indil ko sëñ moo daaw balla mu boole ci doomam bu jigéen sëñ Cheikh Khady itam ba mu wootee noonu li sëñ moo daaw bal la defoon te muy diisoo ñi nga war a diisoo loolu la def xamal leen ni leen jumaa ji la bëgg a yokk kër borom daarul muxti itam la bëgg a tabax ñu nungul ko ñu ko ko ànd ko ak moom ba atum 2004 ma tàbbee ba ñu demee ca weeru mars wa ca ñeenti fan ya la yebal rakkam ji toppoon ci moom di sëriñ Abbas Mbakke moo teg xeeru yokk jumaay darul mufti ak liggéeyu keur borom darul mufti le 4 mars 2004 lañu tambali liggey ba Serigne Abbas Mbacké mo tek xeer wa keur borom daru gi ci juroom benn weer liñ ko liggey juma ji sëñ Cheikh xadi def na ci lu ëpp milliard te amuñu won subvention amuñu won dara موي لولو نك سي دك بي دي دار الموتي غا خامتيني دوخت داجي وو فيك لو في سيغ شيخ خدي ديف دينا جافي لول موم خامون ناني في دي ادنا دو برب لامو دون خنتي وو رك تكو مسا توغال بروم دار الموتي موم غا خنتي وو مو دون ليغيال بروم دار الموتي واي مباكي njabootug borom daarul mooti gi ànd nañu ak moom ca na mu ko bëggee woon ba jëfam kenn ku nekk gis nga ko soo demee bëy ci soo demee daaray kaamil néeg bi borom daaru moo ti wàcc woon ab liggéey mbaar mi nekk buntu kër sëñ ma daaw balla nga xam ne xeer bi ñu ngi ko tegoon 1986 jàkkee borom daaru muuti ji nekk ci biir kër gu mag gi gis nañu na mu ko def boo demee nguddu peye di daaru rahman nga xamante ni bi ko sëñ Modou Awa Balla di gor 1945 di ko sañc moom sëriñ Cheikh Khady mbakke moo daa bàyyi ko foofa di jël si xéewal gi daarul moxti di ko awanteeg rakkam sëriñ Mbacké Anta def na fa néegub yàlla soo demee Madina daara ji sëñ moo daaw bal la mujj gor def na fa néegu yàlla pencum boppam male def na fa néegub yàlla euh, sëriñ Cheikh Khady 2003 la fi toog ba 2016 di fukki at ak ñett waaye loolu yëpp wutalalul boppam bañon nako ba tabax kërëm sax defuko mo yilifon deuxième capitale mouridisme way ci néegi ñax la dëkkoon lool nak da ko don ci borom daaru muxti ndax borom daaru muxti bàyyiwu fi ab tabax seigne mo daaw balla bàyyiwu fi ab tabax Cheikh Abdoul khodous Mbacké bàyyiwu fi ab tabax seigne mo daaw balla bëy ci ak maqama la tabax Cheikh Abdoul Khoudous kër gi nga xamante ni kër sëñ Modou Awa Balla la woon néegu ban ba tabaxu ban ba fa nekkoon moom la fa bàyyi woon di ko tay tayal ak ciment ba jaadootut mu doog koo def ciment waaye noonu yi nga xamante ni bii ñu woon ay ndono sëñ Cheikh Khady ay milliards la def ci dëkkub boroom Daarul moxti bi bi mu toogee di borom. daarul mooti kon jëmm a ngi noonu joo xamante ni bii li leen waxoon ni leen sëñ ma daw ballaa ko yar def ci moom jikkoom ak léppam wane na ko bi mu doonee boroom daarul morti ci jëfal waajuram àndoon ko ak ay rakkam ak taalibe yi ba juróomi fan ci weeru janvier atum 2016 ci la fekki waajuram man nag yàlla dogal mu bëggoon ma ngir borom daarul moxti saa bu ma masaa ñëw wala léeg-léeg bu ma ñëwee bu ma nuyoo mu ne kooku mbay ma ne waaw mu ne ma ah danga nuy foo danga nuy fooxal rek <laughs> yow ceerno rek nga gëm defal ma lu rëy lolou it duma ko fatte fi la tok serigne Ousmane momam indil ma tubey ju and ak mbubb ak mbaxana ak fukki jundi def ko ci am mbous ni ma serigne bel ko jox muy sëri bopam yu ma don sol mu bolé ci fukki jundi yonne mako damay togn serigne dan momom def na mas yebal ñu dem booba dañ doon enregistré la laylatul xadar sëñ Modou Mahfous waaye keroog ba nu demee ba ñëw sëñ Cheikh da leen ni sëñ dan ñoom waa ji leen wax mbay gee mu di leen ñaanal <laughs> ba léegi bu waxee ma ni ko defu leen li leen sëñ bi waxoon ne neewoon na leen na ñëw ma di leen ñaanal lewetoon lool bëggoon ma ngir borom daarul moxti yal na ko sunu borom euh, fayal waaye jëmba ma ngi noonu joj ku wéet moom rek defe ni yow rek la sopp lewetoon lool nuy ñaan sëriñ Abdou Mbacke mi toog ab jataayam sunu borom may ko fan wu gudd ak wér gu yaram ba lépp lu waajuram naaloon mu yeggale ko ba def naali boppam mook njabootu Serigne Cheikh Khady Mbacké gépp ndax Serigne abdu fa waajuram tegoon tànkam rek fa la ko teg wala fi li ñu wax ni ñay ba muy xal babal doom jaa waaye boppam taxul woon tey boo demee kër sëñ Cheikh Khady da nga gis la fa sëriñ Abdou Mbacké def te mu koo def këram ni fii kër sama kër bàyyi ñëpp ko bokk waaye seetul loola ku fa dem di nga gis ni wóotu na sëriñ Cheikh Khady te uuf njaboot gi te mat ko lool ci li nga xamante ni jëmmal na ko ci kër Serigne Cheikh Khady mbakki kon maa ngi leen di sant di leen gërëm Serigne Mahmadan Koso moom lañuy waxtaani suba mom mi wutu won borom daru muti ci dara ja kon ma ngi len di sante di len gëreum jaragen jëf Allah